faslun li ab dog la bu aju ci xeeti naafile yi maanaam julli yi nga xam ne yaa koy coobareew rek def ko bu ñu ne an naflu nag mooy loo xam ne yonante bi defoon na ko waaye soxlawu ko woon daana ko bàyyi ci yenn jamono yi da ko daan def ci yenn jamono yi di ko bàyyi ci yenn jamono yi waaye bàyyiwu ko woon nag rek bu ñu nee julli sàngam sunna la nag mu yonante bi da ko defoon ci mbooloo feeñal ko ci biir mbooloo ma te saxoo ko mësuñoo gis mu bàyyi ko waaye nag amul benn tegtal bi wane ne lu war la dañuy jàpp ne kon sunna la sunna buñ feddli nag li ko wutaleeg sunna buñ feddli wut mooy sunna bañu feddli day ëpp li tuyaaba bañu feddli wut li ñu wax nag ar raxibatu bàyyi ko ci raxiba xemem na dañ caa jublu bu dee ci yoonu Maalik ñaari raakay fajar muy loo xam ne ki doon jottalil yàlla xemem loo na ko xeet wi ci ba mu ne rakxatal fajri xayrum min addunia wa ma fiha nee na nag ci yoonu Maalik moom ñaara kay fajar dong moo ci tudd raxibatu su julli farata yi jàllee dañuy jàpp ne julli sunna yi ñoo ëpp doole buñ jàllee nag raxibatu mii di ñaar rakay fajar door cee topp bu raxibatu jàllee nag julli ñu wax naafila rek te boole ca ràññeel leen ci ki yoor yoor mbaa dawalal tisbaar mbaa dawalal takkusaan mbaa naafila gannaaw tisbaar mbaa naafila gannaaw timis yooyu nag ñu tudd naafila yu ñu sopp ràññeel leen seetli leen mu des nag geneen naafila goo xam ne ràññeeluñ ko seetli ko mooy waxtu wa dagana naafila nga sawar rek daal di amuk laab julli ñaari rakka loolu nag ci la toll mooy sopp nañ waxtu wa toll te sibuñu ca naafila araamaluñ ca naafila nga julli si gën ngaa néew ñaari rakka def ko muy ak naafila jublu koo jegeñ sa boroom yàlla dool la nga jegeñ ko naafila ga seetli ko nag mooy bala ngaa julli sibaar naafila gannaaw sibaar it nga naafila bala ngaa julli takkusaan tam naafila waaye bul fàttee ne gannaaw takkusaan dañ faa sib moom naafila gannaaw timis it nga naafila gannaaw gee it nga naafila yëpp nag nee na am na ci sax lim buñ gën a taamu waaye soo defee rek gën ngaa ñëw ñaari rakka sopp ga dal nay am lu ñu sopp ak lu ñu gën a sopp rek moo fi nekk waaye boo xasee def ñaari rakka moom sopp nga ci boppam ñëw na teewul nag njëkk tisbaar ak gannaaw tisbaar ak njëkk takkusaan lu ci nekk lañ ci gën a taamu mooy ñeenti rakka ñaar sëlmal ñaar sëlmal gannaaw timis it lañ ci gën a taamu mooy juróom-benn ñaar sëlmal ñaar sëlmal ba mu juróom-benn teewul nag boo defee ñaar rek sopp nga ñëw na. nee nañ sëñ mag bi daana ci digle gannaaw timis ñaari ràkka ràkka bu jëkk xul yaa ayyuhal kaafiruun ci gannaaw fatiha ràkka bu ñaareel xul huwallaahu ahad ci gannaaw fatiha julli yoor yoor bokk na ci naafila ya ñu feddli gën kaa néew ñaari ràkka juróom benn digg doomu na juróom ñett nag bëgguñu ko ko weesu loo sawar sawar daal mel ne ne am nañu wax ne bul ko weesale juróom-ñett naafila ñu def ci weeru koor bokk na ci naafila ya ñu feddli te yu bari tuyaaba ba addis ba wax ne man qaama ramadan imaanan wa ihtisaaban xufira lahu ma taqaddama min dambi moom nag lim bu baraka yi ñu koy def day faral di wuute lim bi wax fi moom mooy ñaar fukki ràkk yoo xam ne safa wetar ñëwagut ci jamonoy Omar ibnul Xattaab yal na ko yàlla doole gërëm moom mi nga xam ne moo ko digle woon noonu la daa tollu ñaar fukki ràkk yu teg ca safa wetar mel na ne xam ne ngay julli ay ñaar ñaari ràkk ñaar sëlmal ñaar sëlmal ba am ñaar fukk tekki nag ñaar rakk muy safaa teg ci benn mu wetar fi nag ci waa réew mi moom li ëpp a jëfandikoo rek mooy la soxna Aïcha waxoon ne yonante bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam mësta weesu ci genn guddi muy ci weeru koor muy ci yeneen fukki rakk ak ñaar teg ci wetar muy fukki ñett loolu daal lañ baaxoo jëfandikoo fii ci réew mi sopp nañ ñu xaaj alxuraan def ko ay xaaj yoo xam ne ci biir naa fi lay koor yi danañ ko ca wàcce xam ne ñu doon déglu daañu dégg léppi alxuraan ja ni ñu koy defee yi sax moom rakk bu ne roba bu dee ko mokkal moom kooku dana wàcce ba tàmbaliwaat te fekk weeru koor yi jeexagut naafile yi weeru koor yi ku ko mën a def ci sa néeg moo gën ndegam wéetul sax nga tàyyeel te it sag ñàkk a dem ci jàkka ya du tee nit ñi moom dem ca bu dee kilifa goo xam ne su demut nit ñi dem duñ sawar kon nay dem mooy gën beru na dem ndax ñëpp dem bu dee nag koo xam ne moom bu demut it du tee nit ñi dem te bu beroo it du ko tee sawar kon mu wéet beru def ko moo gën nee nañu dem ca jàkka ja ku dugg jàkka ci waxtu woo xam ne sibuñu ca naafila araamaluñ ca naafila te it mu nar a toog naruta romb rek jàll bu fekkee day romb rek jàll mën naa romb rek kon jàll waaye ndegam daa nar a toog moom balaa toog bëgg nañ mu julli ñaari rakka nuyoo ko jàkka ja su asee jàkka ji daal di julli farata mbaa mu fekk ñi julli farata mu ànd ca bu ci yéene waalee nuyoo jàkk ja dañ koy bindal tuyaabay nuyoo jàkk mu ànd ak tuyaabay farata ja su fekkee nag dafa agsi daal di julli farata ja dana am tuyaabay farata ja dong waaye ndegam nag xelam demut ci nuyoo jàkk ba ba di ko fasaale moom des ko bindal nee nañu yaa bay nuyoo jàkka du tee nag asi nga asi daal julli farata rek daal na yóbbaale nuyu jàkka ja ba kenn du ko wax ne ko def nga dara lu ñu sib deful daal lu ñu sib waaye nag dis ko bindal tiyaa bay nuyoo jàkka lu may mu yéene woon ko ci ba muy joox farata ja su boobaa ñu bindal ko jaar yëpp ku ñëw ci kaaba ga nag da nga koy wër wër ga mooy doon nuyóob kaaba ga di nuyóob jàkkay kaaba ga waaye foofu daa am teqale koo xam ne moom dëkkul màkka ab doxandéem rek la fa nga xam ne bu fa jógee amati kaaba gu wër du ko yomb dañoo taamu lu mu nara bari le naafile ay rakk mu bari le ko wër kaaba waaye ka nga xam ne moom dafa dëkk màkk nga xam ne wër kaaba gi yomb na ko su ñëwee ca kaaba ga te fekkut mu nekk ci aj mbaaxum ra bañ di ko digal wër ñëwutoo nit ngir wër dafa ñëwoon ngir julli mbaa jàng alxuraan mbaa jàng xam-xam yu mel noonu kooku moom julli ñaar rakk muy nuyoo jàkk ja moo gën ak wër kaabaam manees na ne ñeenti anam la ci nga ñëw ca kaaba ga ndax day julli ñaar rakka nuyoo kaaba ga am day wër kaaba ga mu dim nuyoo ñeenti anam yi mooy ku ñëw benn mu dëkk màkk mbaa la ko wër wala mu nekk foofu doxandeem muy ñaar nga ne itam lu ca nekk benn mu nekk ci luñ koy digalee wër kaaba ga ni ki aj mbaaxum ra wala nekkul dara ci kenn ci yooyu yaar ñoom ñëpp ñoom ñëpp nag mën ngaa jàpp ne suñ dukkee rek nañu wër kaaba ga muy silum nuyoo ba mu des nag ka nga xam ne daa dëkk màkka te nekkutoon ci aj mbaaxum ra bañ di ko digal ak wër kaaba te it ñëwutoon ngir wër si daa ñëwoon ngir jël yitte ni kii daa ñëw ngir julli si wala jàng si xam-xam ba alxuraan mbaa leneen kooku moom nuyoo jàkk ja ñaari rakka moo gën ci moom nuyoo ci kaw wër kaaba ga soo ñëwee nag jàkkay madina bëgg a siyaare yonante bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam dañoo sopp nga njëkk a dugg ci jàkka ja julli ñaar rakka bu nuyoo ba nga nuyoo sa boroom door a jàll nag siyaare yonante bi sallallahu alayhi wa sallam nuyu ko nuyu ña ko bokkal nekk muy Aboubacar Omar waaye fekk nag waxtu woowa si bu ñu ca naafila araama lu ñu ca naafila bu ñu waxtu wuñ aaye naafila moom nga daal jawali rek siyaare yonante ba nuyu ko ñu ne kon dañ ciy dégg ne boo duggee ci jàkka fekk fa mbooloo ñu toog su fekkee ne boo leen nuyu wutit daal di gaaw julli ñaari rakka duñ ko teg fenn du tax ñu jàpp ne da nga leen woyofal bëgg la caa mere di jàpp dara seen diggante kon nga bañ leen nuyu daal di gaaw julli ñaari rakka door leen nuyu mooy gën war a galee nag ne boo leen njëkkuta nuyu door a julli danañ ko teg fenn ba seen diggante naqari kon saye boo njëkk leen nuyu wekkar mboolem julli sunna yi moo ci gën a màgg waaye nag dañoo bëgg bala nga koo def lu néew néew ñaar rakk jiitu ko ñaar rakk yooyu moo tudd ashafu safa safa ashafu day firi tollanti mbaa tollantiku alwitru mbaa alwatru di firi ak tool ñu bëgg nag bala ngaa def rakka wetar bi nga def ñaari rakka muy safa lum néew néew man ngaa def nag ay ñaar ñaar yu bari bari ba noppi tëje ko wetar ñaar rakk yi nga xam ne nag ñooy jiitu wetar moom sopp nañ rakk bu njëkk ba gannaaw fatiha sabbi sma rabbika rakk bu ñaareel ba gannaaw fatiha qul ya ayyuhal kaafiroon wetar nag bu dikkee muy benn rakk moom ñu sopp nga jàng ca gannaaw fatiha qul huwallahu ak falaq ak naas ñaar rakk yu safaa dañoo bëgg boo ko jullee ba mat nga wax assalaamu alaykum door a indi wetar waaye taamuñ nga sësale safa ak wetar maanaam julli ñaar rakka taay rek sëlmaloo daal jóg teg ci wetar door a sëlmal xam na ngaa jóg ko wetar benn rakka ba ci ñaar rakka yi te sëlmaloo seen diggante loolu sib nañ ko jekki-jekki def wetar dong te jiitaloo ñaar rakka mu jiitu ko sib nañ ko dañuy bañ nga taayeel jàpp ne wetar rek mooy sunna moo dëgër safa ma koy jiit dañ ko sopp dong nga jekki-jekki julli wetar dong daal di bàyyi safa loolu sib nañ ko ñaar raakay fajar mooy ñaar raaka yu ngi julli gannaaw fajar fenkee te julli gu ñu suba dañ koy tudde rax yëbatu waxoon nañ léegi ne gannaaw bu julli sunna yi jàllee moo gën a màgg daylu yonante bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam xamen loo xeet wi ca bam ne rakxatal fajri xayrum min ad-dunya wa ma fiha ñaar raakay fajar moo gën adduna ak li ci biiram mu ne moom nag faaw nga bàyyi ba fajar fenk dana ko wax léegi te it da nga koy yéene yéene di ko ràññeer maanaam su fajar fenkee nga julli rek ñaari rakka saxal demutoon ci def ko muy ñaari rakkay fajar du tax mu doy te it ba fajar fenkee moom dong ngay sañ a naafila doo sañ a julli geneen julli naafila naafila gu bokkut ak ñaari rakkay fajar bu dee yor yor boo kàbbaree rek daal nay baax bu doon nuyoo jàkk itam mën ngaa jékki-jékki kàbbar du jar ngay teewlu ne damaa yéenee nuyu jàkk ji waaye ñaar rakkay fajar moom faaw nga dawal sa xel ci ñaar rakkay fajar laa yéenee def ndax mu ràññeel koog geneen naafi la ñaari rakkay fajar ak julli suba gi ñoo bokk waxtu su wóoree ne fajar fenk na rek mooy seen waxtu bala ngaa julli nag ñaar rakay fajar yi da ngay wóorlu moom wóor la ne fajar fenk na mbaa sa njortu dëgër ca bu baax a baax su fekkee ne da ngaa jekki-jekki julli ñaar rakay fajar te seetoo ba xam fajar fenk naam fenkut ngay sikk sàkk rek ba xam fenk naam fenkut boo ko jullee itam moom dañuy jàpp ne du doy moo xam nag gannaaw ba am nga ci lu wóor ne ba nga koy julli fekkoon na fajar fenk wala amaatoo ci lu wóor ñoo yemoon ne xam na nga doon sikki sàkk rek du baax maanaam def nga julli kese rek waaye bu ko tax a doon ñaar rakkay fajar saye boo baamuwaat ko su fekkee nag da ngaa wóorlu ba ne fajar daal fenk na nga julli ñaar rakkay fajar yi gannaaw ba su la wóoree ne booba fenkoon na baax na bu fekkee itam xamaatoo ci dara lu wóor it ba tey baax na waaye ba tey nag bu la wóoree ne booba fenkutoo nit da nga koy defaat bu fàtte itam ne moom ngay jiital doo caa teg ñaar rakkay suba ndax boo xasee salmal suba ak lu waxtu wa yaatu yaatu dañuy sib naafila nga xam ne kon soo fàtte woon ñaar rakkay fajar ba julli suba ba sëlmal doo mën a julli ñaar rakkay fajar lu may jant bi fenk ba ñu saña naafila mooy boo xoolee jant bi na mu yëkkatikoo ci sa bët mat ñetti meetar loo biddanti biddanti nag bu la wóoree ne rek ñaar rakkay fajar ak ñaar rakkay suba yépp xaj na ci kon na ngay jiital ñaar rakkay fajar mujje ñaar rakkay suba sooy naatable nag yaar yépp xaj na ci yam xaju ji da ngay bàyyi fajar ji moom te julli suba kese ndax fay gi ñaar rakkay fajar moom du wéy jant bi yëkkati ko lu mat ñetti mètre rek nga mën a fay ñaar rakkay fajar diggante ba ak tisbaar dana ko wax léegi soo diggante yi ba nga xamee ne la des sa diggante ak jant bi fenk ñaar rakk rek lañ fa mën a julli da ngay moomale ñaar rakk yi lépp suba daal di bàyyi ñaar rakkay fajar te julli julli suba gi nekk farata mboolem xeeti julli yi nga xam duñu farata goo ci xam ni waxtoom jàll na rek jàll na kenn du ko fay ba mu des nag ñaar rakkay fajar moom fay ga wëru ndax du farata waaye nag ngir nga am tuyaa ba moom daañu maye su fekkee am na lu tee nga julli ko ba mu raw la it la dale fa jant bi fenke ba yëkkati lu mat ñetti meetar digganteem ak tisbaar mën nga faa julli ñaar rakkay fajar yi nga julli ko am tuyaaba moo gën nga bañ ko julli nde moom ndegam du farata rek fay ga warut addis ba dane bu ñu dee liqaamalal ilimaan kenn sañu faa tàmbali geneen julli kon nag suñoo jàkk ji fekk ñuy liqaamalal ilimaan julli suba ga mbaa sax ñu liqaam ba tàmbali bu la wóoree ne ilimaan yéex na yéexaay boo xam ne mën nga fee julli ñaar rakkay fajar yi ba noppi fekkee rakkaam bu njëkk itam du tax nga sañ ko da ngay daal di kàbbar rek ànd ca jullit ilimaan ja bàyyi nag ñaar rakkay fajar bu naafile daganee nga fay ko niñ ko waxe woon léegi ndegam nag duggagoo ci biir jàkka ji dégg nga ñu li xaamal ilimaan waaye yaa ngi ci biir jàkka ji kon bu la wóoree ne mën ngaa gaaw julli ñaar rakkay fajar te rakk ba ilimaan di njëkk julli sax du la raw kon defal noonu daal di gaaw julli ñaar rakkay fajar dem ànd ci julli mbooloo ma soo ragalee nag ne boo fi dee julli ñaar rakkay fajar rakk bu njëkk ba moom faaw mu raw la xëy na nga fekkee bu ñaareel bi waaye bu njëkk ba moom faaw mu raw la koy it la gën mooy nga daal di bàyyi ñaar rakkay fajar dem ca julli mbooloo ma fekkee mbooleem ñaar rakkay julli suba ga te du tee saa yu jant bi fenkee ba yëkkati ko ñetti meetar nga mën a fay ñaar rakkay fajar loola gën ci yow te loolu nag ndegam yow duggagoo ci jàkka ji bu la neexee nga ne day julli rek ñaar rakkay fajar su ma demee fekk ilimaan rawee ma rakk bu njëkk it ma fekkee bu ñaareelam daal cee teg benn rek mu baax loolu sañ nga ko sopp nañ nag bu fekkee nar ngaa dem ci jàkka ja nga bañ a julli ñaar rakkay fajar yi ba sa néeg te dem ba ci jàkka ja nga jullee ko fa boo demee ba jàkka ja nag da ngay julli rek ñaar rakkay fajar yi mu wecci nuyoob jàkka bul defe ne da ngay nuyu jàkka ji ñaar rakk ba noppi door a julli ñaar rakkay fajar yi da ngay julli rek ñaar rakkay fajar yi mu yóbbaale nuyoob jàkka ba su fekkee nag laata ngay ñëw ci jàkka ji da ngaa julli woon fajar ba noppi kon bu ñëwee ci jàkka ji te fekkul jàkka ji taxawal da ngay toog rek waaye doo sañ a julli doo sañ a baamu ñaar rakkay fajar nga julli woon doo sañ a julli ñaar rakk di ko def ab nuyoo ndax dañu ne su la wóoree ne fajar fenk na doo sañ a julli kenn julli naa fi la gumay ñaar rakkay fajar te yow julloon ko ko ci sa kër laata ngay ñëw kon toogal rek bañ nga xaam nga ànd ci julli suba ga sopp nañ booy julli ñaar rakkay fajar rakka bu ne nga jàng ca faatixe kese loolu nag xëy na mu bett la waaye fii mu nekk nii téere yu bari bari loolu la ñuy wax am na nag hadis bu ñu wax ne Abu Hurayra moo ko nettali ne yonante bi bu daan julli ñaar rakkay fajar rakka bu njëkk ba da cay jàng faatiha ak xul ya ayyuhal kaafiroon rakkab ñaareel qul huwa allahu ahad loolu nag nee nañu ku koy def yàlla musal la ci mettitu bañ te dañ ko nattu gis ko muy lu wér rek xam ngañ ci yàgg suub la li ñuy bari la def nag buñ dee julli ñaar rakay fajar raka bu jëkk gannaaw faatiha alam nashrah rakab ñaareel gannaaw faatiha alam tara kayfa te it mu koy gis ci téere sëriñ bi niki masalikul jinaan moom waxi al imaamul ghazali la al imaamul ghazali moo ko wax ba noppi ne moom it lu ñu wóorlu la wax ko koy saxoo def lépp loo xam ne da nga koy bañ ba koo mu jege la yàlla mën na la caa musal te it sab noonu du mën a def menn pexe ba lor la ñaar rakkay fajar boo ko dee julli dañuy sopp nga wax ko ci suuf bañ koo biral gépp naafile bu ñuy def ci guddi rek sopp nañ ñu bël ko gannaaw bu jant bi sooyee ba nga julli timis rek nag guddi gi dugg na naafile yi ngeen naafile ci gannaaw timis daal ñu sopp nga biral ko waaye nag fu ñu fi soppi biral te nga xam ne soo biralee am koo nekkal ca jàkka ja mbaa ca barab ba am xelam di jaxasoo rek da ngay dal di bàyyi biral ga ndax lor sa mbokk njulit dafa araam te biral gi lu ñu sopp rek la xam nga wetar sunna la te mboolem julli sunna yi moo ci gën a dëgër te it ci guddi lañ koy def moo tax kon sopp nañ lool lool nga wax ko ci kaw te bañ koo yelu soo ko yeloo du ko tee baax waaye sopp nañ lool nga wax ko ci kaw soo yéexi woon wetar ba fajar fenk nga door di ko defit nga xam ne kon dugg nga ci bëccëg bi ndax bëccëg mi ngi tàmbalee ci fenkuk fajar du tee rek ñu sopp wetar ga nga wax ko ci kaw boo sëlmale julli suba daa ñu sopp nga sax ci tudd yàlla am goo ko defee rek nag baax na nga sax ci tudd yàlla moo xam da ngay jàngal quraan moo xam da ngaa yore wërëtu ba da ngay jàng xasida nga sax ca noona bañ a waxtaan waxtaanu àdduna woo xam ne mënoon naa ñàkk bañ a nelaw ndegam gëmmantuwoo lool lool sax ca noona nag ba jant bi fenk mbaa jant bi jegee fenk addis ba sax nee na ku jullee julli suba ci mbooloo toog nag ca ab jullikaayam di tudd yàlla ba jant bi fenk mu julli ñaari rakka ñu bindal ko tuyaabay aj ak xumra yu mat yu mat yu mat dafa baamu yu mat ji ci addis ba ndax feddali muy man salla subha fi jamaahatin wa jalasa fi musallaahu yadkurullaha xata tatlu alchamsu wa salla rakxatayni kaana lahu sawaabu xajjatin wa umratin taammatayni taammatayni taammatayni julli juróom goo ci sëlmal rek ñu sopp nga jégglu sa boroom sunnal nga wax astaxfirullah ba muy ñetti yoon julli ci yonante bi di sopp itam nga jàng kursiyu ak lixlaas def itam taxab yooyu ñu def te mooy subhanallahi fanweeri yett alhamdulillahi fanweeri yett allahu akbar fanweeri yett muy téeméer manqué benn nga mottalee ko laa ilaha illallah jooju ba ci wax wax ala kulli shay'in qadir ñu sopp itam nga ñaan teg ca lépp gi lu farata góor sërmal rek sopp nañ nga def yi ñu wax te itam ñaan boole ci loo bëgg rek nga ñaan ko dañoo waxoon ni julli sunna yi boo weesoo farata yi ñooy gën a màgg mu ne nag julli sunna yi mooy ni mu ko tegalee wetar moo ci gën a màgg ci ñoom ñëpp bu jàllee korite tabaski ñoo ci sës te it ñoo yemoo daraja buñ jàllee jullit muuru jant topp ci buñ jàllee jullit mbaaw topp ca jullit muuru weer nag ñu bari dañuy wax ne lu ñu soppal waaye aggul ci sunna moo tax moom moo ñaali wu ko fii weetar doon gi mu doon sunna si gën a feddliku ci mboolem julli sunna yi dafa tax ñu wutal ko moxtaar wutal ko daruur yi moxtaaru weetar mi ngi tàmbalee ci bu gee jotee nga xam ne ba nga ko julli fekk na shafaq fàddu te it na nga jullee gee ga wér kon foofa la muxtaarum wetar tàmbalee ba fajal fenk su fekkoon ne da ngaa teel julli gee te waxtoom jotagut ni ki ñuy boole timis ak gee ndax ragal taw daañu ko wax ci kanam wala nga julli gee ba noppi ndekete yow moom baaxut yooyu yëpp booy tere it du baax su julli woon sax gee teg ci wetar ba àggal gannaaw ba mu fàttali ko ne gee nga baaxut it faaw gannaaw bu baamoo gee nga day baamuwaat weta wa fekk dam fekk waxtu wa jot mu door a julli gee waaye na mu ko jullee moom baaxut ba da koy baamu bu fekkee wetaroon na itam day baamuwaale wetar wa wetar wa du wér bu ñu nee moxtaar wetar mi ngi tàmbalee ci gannaaw bañ jullee gee te fekk waxtu wa jot te gee nga wér ñu ne moxtaaram ma nga tàmbalee foofu ba ca fajar fenk nga tàmbalee nag fa fajar fenkee ba ba ngay sëlmal julli suba loola mooy daroor yoom nam ko doonee nag mooy lee mu ca teg li tax ñu ne daroor yu wetar mi ngi tàmbalee ci ba fajar fenkee ba ba ngay sëlmal julli suba mooy bu fekkee yow dong yaay julli ba ngay julli suba ba ci biir nag nga fàttaliku ne yow kat defoo woon wetar kon ndegam waxtu wa yaatu na dañu sopp nga dagg julli suba ga daldi def saxaag wetar ndegam yaar yëpp xaj na ca baa mu fajar ndegam defoon nga fajar door a julli suba nag loolu mooy bu dee kenn rek bu dee nag kuy jiite muy jiite ba yàgg mu fàttaliku ne defutoon wetar moom it dagan na mu dagg julli ga daldi defi wetar ba noppi door a julli suba bu dee maamoom it ñu ko jiite ba ci biir mu fàttaliku ne moom kat defutoon wetar sañ naa dagg moom it dañu wax sopp waaye dañu wax sañ naa dagg génn def wetar waaye nag nga seetlu foofu ne day fekk waxtu yaatu ba nga xamee ne bu daggee suba ga mën a def wetar door a ñëw julli suba ga te suba ga du ko raw dana wax ca kanam sax bu waxtu wa yaatoogul noona ba bëgg a def safaag wetar ak suba yëpp yu mel noonu du ca xaj su boobaa ni ñu leen di tegalee boo xasee nag julli suba ba sëlmal door a fàttali ko ne wetaroo woon nag kon wetar raw na la ci googu guddi moom ndax bokkul ci yi ñuy fay kenn ko fay moo tax su fekkee lu ci ëpp da nga mën a yeewu ci mujj guddi gi maanaam jëkk fajar du fenk kon daañu sopp nga bañ a gaaw a def wetar yéexe ko ba yeewu ca waxtu woowee door koo def su fekkee ne nag sak yeewu ci waxtu wa wóorut kon ngay farlu ci bala ngaa tëdd rek wetar mu gën a wóor nee nañ abubakar ni siddiq yal na ko yàlla doole gërëm dafa daan wetar ci njëlbeenu guddi gi balaa tëdd omar moom daa ko yéexe ba ko yonante bi déggee ne abubakar daa def lu gën a léem tu gën a wóor ndax moom xamul ba xam dana yeewu ci mujj guddi ga am déet omar nag daa jàpp ci jekku gëm jekku boppam xam ne moom faaw dana yeewu moo tax kenn ku ci nekk mu bàyyi la ci la nga nekk ndegam nag naafi la ci guddi lu mu gën a sori ci guddi ga jëm ci fajar gën a baax moo tax kon wetam mu màgg moom su ko mënee yeexe te yeewu balaa fajar fenk def ko mooy gën def ko ci balaa tëdd waaye nag su ko wóorul daal na ko def balaa tëdd su fekkee nag wetaroon na laata muy tëdd bu yeewoo ci guddi gi bëgg a julli mën naa def rek ay ñaar ñaar waaye du baamuwaat wetar ndax la addis ba ne laa witraani fii lay la genn guddi du am yaari wetar addis ba dane ijxalu axira salaatikum min al layli witran seen julli guddi dee leen ko tëje wetar maanaam na ca wetar di mujj ñu ne kon nag li fekk jàpp nga ne yow nar ngaa naafilewaat bul wetaragon da ngay naafile di naafile ba jàpp ne léegi jàppatoo def geneen naafile nga door a def wetar ndax wetar mujj ci say julli ci topp addis boobu mu ne nag waaye lay tax ñu sib nga naafila ci gannaaw wetar wa mooy laata ngay tàmbali wetar wa naka jekk amoon nga yéenay naafila ndegam yaa ngi am yéene naafila ba tey rek daañu sib ngay song di def wetar mel ne kon mër laa mujjale wetar fay julli guddi boo jàppoon nag ne noru laa naafilawaat geneen naafila nga ne kon naa wetar ba nga duggee ci wetar wa nag nga fàttaliku naafila goo daan def te defoo ko woon mbaa ngay rek sawar goo sawar gu nekkutoon ci yow nga daal di am xëy na moom naafila waaye loolu fekk na moom nga tàmbalee wetar koy da nga mën a def naafila yooyee gannaaw boo wetaree waaye du tax na nga baamuwaat wetar ba tey boo defoo ne daal doo defati kenn naafila ba tax nga wetar ba nga wetaree ba sëlmal nag nga door am cawarte boo xam ne yëgoo ko woon mbaa fekkoon nga wéré di nga wér koy daañu la may nga naafila takk-takk bi daal mooy li feeg yaa ngi am yéene naafila daañu sib nga songu daal di wetar xam ne kon mën laa mujjale sa julli guddi wetar na ko addis ba santaane kon def nga luñ sib ba tey bu ñu nee gannaaw ba nga tàmbalee wetaroo moom ak gannaaw boo wetaree ba noppi bu amee cawarteg naafila duñ sib nga naafila lay tax ñu bañ koo sib kat mooy nga bañ koo sësale ci wetar wa bu ñu nee sibuñu nga naafile ci gannaaw ba nga wetaree ba noppi ndax yow bi nga tolloo ci biir wetar yi mbaa ba nga sëlmalee rek nga door am cawarteg naafila dañu bëgg boo sëlmalee wetar wa nga teg ca diir door a naafila te bañ caa sës rëkk-rëkk maanaam naafila nga bañ a sës ca wetar wa rëkk-rëkk ni ki bu fekkee ba ngay wetar boobu yaa nga woon ci jàkk ja boo bàyyi ko ci jàkk ja ñëw ba ci kër gi rek googu tàggale doy na mën ngaa daal di naafila ba tey it boo wetaree woon ci kër gi gannaaw ba nga jëm jàkk ja itam boo àggee jàkk ja mën ngaa naafila ndax boobu tàggale doy na boo wetaroon it teg ci nelaw yu gàtt yu woyof yoo xam ne yàq sam njàpp mbaa nga teg ci nelaw yoo xam ne yàggul waaye yàq na sam njàpp nga daal yeesa njàpp ma it kon boobu tàggale doy na diggante wetar waag naafila googu nga bëgg a def da nga ne woon wetar daroor yoom mi ngi tàmbalee ci fa fajar fenke ba ba ngay sëlmal julli suba mu ne nag nga yeexee ko bañ koo def ba fajar fenk moom sib nañ ko ndegam amoo woon ngànt bu fekkee nga am ngànt nag ci nelaw mbaa fàtte mbaa lu ni mel moo tax nga yéex a wetar ba fajar fenk kon moom sibuñu ko ndax ngant laa tax gannaaw boo jullee suba ba sëlmal dañuy sib ngay waxtaan waxtaanu adduna woo xam ne mën naa ñàkk bu dee sax lu mënta ñàkk moom sibuñu ko waaye ne ko mën naa ñàkk lañuy sopp mooy sax ci zikkar nañ ko waxe woon ba jant bi fenk gannaaw bu fajar fenkee nag te julleegoo suba moom lu tax ñu sib waxi adduna diggante boobu nga xam ne fajar fenk na te julli boo suba moom boo bëggee waxtaan man ngaa waxtaan waxtaanu àdduna gannaaw ba nga jullee ñaaraakay fajar nga tëdd tëddin woowu nga xam ne sax na ci sunna te mooy bi nga jullee fajar ba àggal bala ngaa julli suba nga tëdd ndiir su gàtt gàtt tëdd sa wetuk ndeyjoor loolu sax na ci sunna waaye waa ma dañoo gis waa Madina daw ñu ko def te lu addis bi wér wér Malik moom da ci boole gis waa Madina di ko jëfe buñ ko jëfewul mu jàpp ne dañ koo man suuxal maanaam wéroon na waaye gannaaw ba dañoo am digalul bàyyi ga moo tax waa Madina jëfee duñu ko jullit naafila goo xam ne du naafila yu weeru koor mbooloom bari daje di ko def moo xam béréb bañ koy defee bu siiw la bu ñu xam moo xam du bu siiw ndegam mbooloomu bari na rek daal nañ koy sib fekkoon na it mbooloomu bariwut waaye fañ waaye fañ koy defee day béréb bu siiw a siiw bu nit ñi xam ko ba tey daal ñu ko sib ndax dañuy jàpp ne naafila moom la cay cosaan mooy ku ne day beru def ko moom rek waaye di su ko def mbooloo kon nag mbooloom bari daje ngir am ku jiite julli julli naafi la wala mbooloom bariwul sax waaye barab bañ koy defee daa siiw loola daañu ko sib su fekkoon ne nag mbooloom bariwut ñaar ñett rek la te barab bañ koy defee itam siiwut kon duñu ko sib nga seetlu ne kon ni ñuy defee jullit tamxarit ak lu mel ne jullit àllarbay kare yi mel noonu dañ koy sib ñu koy def mbooloo xëy na nag ndegam ñenn ci jigéen ñeeg gone yi bëgg nañ caa ànd te duñ mën a beru def ko xëy na loolaay ngànt la ci ñu def ko mbooloo am ku jiite bu noppee jàng ñaan nga lu wax ñu wax ko xëy na loola ngàntay tax waaye daal képp koo xam ne julli googee mënal nga ko sa bopp ak ñaan nga dañuy taamu nga beru def ko te bañ a ñëw ca mbooloo ma mu ne nag boo yeexee yeewu ba nga xamee ne sa diggante jant bi fenk nga xam ne fala daroor yu suba yem ñaar rakk rek lañ fa mën a julli kon ñaar rakk yi da nga koy moomale julli suba ga te xam ne wetu raw na la ca booba bis maanaam koo guddi ba ngeen leen guddeeti dañu bañ nga defee ndegam sa diggante jant bi fenk ñaar ak xaj na fi da nga sañ defal benn ba wetar dugalal benn ba suba bala waxtu waa jeex nga àggale benn ba gannaaw ba waxtu wa jeexee loolu la ñu bañ nga defee ne mën naa nekk moom daal ndegam sa digganteeg jant bi fenk ñaar rakk moo fi xaj te yow jullee ko suba ñaar rakk yépp moomali ko suba bu ko defee suba ñaar rakkam yépp dugg ci biir waxtu wa su fekkoon ne nag ñett rakk xaj na fa moom da ngay julli wetar muy benn nga daal di gaaw julli suba nag fajar nag moom nga bàyyi ko ba waxtu bu naa fi la daganee rek mu yoor yoor da ca dalee ba tisbaar da nga mën a fay ñaar rakk ay fajar ndax moom ni nga ko weesoo woon moom rek la ñuy fay ci mboolem julli naafile yi soo yéexee yeewu ba sa digganteeg jant bi fenk lañ fa mën a julli mooy juróomi rakka kon moom da ngay julli safa muy ñaar nga teg ci wetar muy ñett nga teg ci suba nag muy ñaar kon muy juróomi la nga bàyyi nag fajar moom ba naafila dagan nga fay ko lii mu ne nag maalam yu xaddimbu day wane ne su fekkee ne gannaaw ba nga jullee gee jotoon ngaa julli ñaari rakka moo xam ñaar dong la ba àpp na ko ñeent jëm kaw wetar rek nga bàyyi woon kon boo yeewoo nii te sa digganteeg jant bi fenk ñu mën faa julli juróomi rakka da ngay far def benn rakk muy wetar nga teg ci ñaar muy fajar tegaat ci ñaar muy suba waaye ndegam defoon nga safa rek moo julli woon nga ñaar rakk laata ngay tëdd rek mën ngaa doyloo safa joojee def wetar kese rek ak cay teg ñaar rakk ay fajar daal di jàll julli suba su fekkee nag da nga yeewoo sa digganteeg jant bi fenk mën a su fee julli juróom ñaari rakk kon ñoom ñëpp daañu mën a ñëw ndax da ngay julli safa muy ñaar nga teg ci benn wetar muy ñett nga teg ci ñaar rakkay fajar muy juróom nga teg ca ñaar rakkay suba nag muy juróom ñaar kon ñoom ñëpp dañ ñëw moom